Euh, moo ma toppatoo mag sama benn doom ñu jógee layun ak dimi ba nañu egsee Dakhla biñ ñëwee Dakhla sax test yi ñuy defal nii tey defal nañu ko à Dakhla dañuy def di mettre en consigne génnuñu suñu hôtel boolu ñu ay homme de tenue ñu ñu presque maanaam soixante douze heures yóbbu def test yi ba lépp ok ñu ñëw nañu mën ngeen génn ci dëkk bi ñu commencé cycle dëkk bi donc test yi ñu defal nii defal nañu ko à Dakhla euh, tabarkàlla may gërëm teer teer moo moo dëkk ñaaxar teer waaw te toog te toog def euh, ko Dakhla bañ na ko ba ba église sax la def euh, yow Amadou fa la ñu defal suñu bureau ñuy bàggante ci lekk bi ci naan bi du nelaw du noppalu amul jàmm amul salaam message du président la république ñun jeunesse bi dina wax ni ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di gis sa taxawaay gis nañ lépp di la ñaanal tamit fii sa réew la yaa moom ñun ñun ndaw yi ñun ñoo fi ne ñun ñoo ànd ak yow yàlla def ko kenn mënu ci dara. Mhm. en plus tamit depuis affaire bi amee ba léegi si yow seetaanoo ñu président Macky Sall def nga a baax lu war a ñëw ñëw ñu ngi lay remercier. ak ministre bi ministre affaires étrangères ci affaire Covid beeg yëpp gis ne xaalis bi nga xam ne li yónnee nañu ko. wax dëgg yàlla jëlal jëlal ñu en charge nag jëlal ñu en charge ci ab ci ci yi. waaw ñu jox nag lekk ak naan wax dëgg yàlla ñu koy sant ko gërëm bu baax a baax. waaw di ko ñaanal nag li mu bëgg moom moo ko xam yàlla na ko yàlla may.

mais Macky Sall ci benn côté dañ ko war a wàcc jox wàccuwaayam mhm. lu tax ñu war ko jox wàccuwaayam wax bu jotee da ngay génn xàqu mooy tas na diaspora bi fu nekk dara dem fa amul kuy toog na ñamuloo amul kuy toog yaa may dégg taxaw nañu na ko yàlla na ko yàlla taxaw taxaw nañu na ko yàlla taxaw waaye léegi nag moo métti ñu dégloo déglu añuñu ne ko zéro faute ne ko ñun kontaan nañ ci moom taxaw nañu taxaw nañu de C'est le ministre. C'est le ministre Kocc Kalam. Non, c'est Kila Kocc Kalam. C'est le ministre. di la wax tamit bu fekkee jeunesse mooy téye dëkk di fal président sa xel na gën a dal ñun suñu xel mi ngi ci wotu jug jeunesse yëpp nag rumeur mënul ñàkk parce que nguur moom boo jigéen li nga dégg lu ne mais ñun jeunesse bi ñun ñooy nguur gi ñun ñi ngi ànd ak yow di la di remercier ñi nga ne tamit ñi ngi ànd ak yow taxawaay yi rafet na parce boobu ba léegi diaspora bi seetaanuñu ñu ngi lay nuyu bu baax président di la gërëm di la sant ñun gis nañ sa lépp ñun aman man daaw da ndaw ba bi na te di nga fi toog incha allah troisième mandat incha allah fii looraa ji bàkki alaaji Maalik ñun jeunesse bi ñoo moom suñuy carte ñun ñoo moom lépp ñun njëriñ bi ngay def ci gouvernement bi gis nañ ko gis nañ lépp

monsieur le président Macky Sall ñu leen di nuyu di leen siyaar di leen jox seen wàcc di leen nuyu yéen ñëpp di leen waaw di leen mas di leen masawu nag di wax ni jërëjëf Macky Sall suñu président yàlla yàlla defal jàmm may la gudd fan ba toog fii ba lijjanti li nga bëgg a lijjanti ci Cheikhou Tidiane ba gën a fekk jàmm ci barke Alaaji Maalik wa ak njabootam waaw ak ak bépp ministre boo xam ne mi ngi si ginnaaw waaw ñun nag suñu problème lenn la rek dañu nekk ñoo xam ay njaboot lañ parce que def nañ def nañ mois ngi tax la bloqué man mii di wax ak yéen de wax dëgg yàlla toog naa quatre mois yoo xam ne fayuma sama location kër ak ñeneen ak ñeneen waaw dañ koy ñaan daal mu jàpp lañu daal mu jàpp lañu ko te yàlla tax ñu ngi koy remercier nag waaw ñu ngi koy remercier bu baax a baax di ko ñaanal li mu bëgg bu mu bëggee yeggale Sénégal bu mu bëggee eggal Sénégal yàlla ma ko yàlla may kàttan ak doole ba mu yeggal foofu Sénégal waaw di remercier nag kii euh, le directeur général Amadou. Amadou ndax mënoon nañu waaw parce que chaque jour. mi ñuy woo di ñu nemmeeku di xool yan situation la ñuy nekk. di ñu yónnee xaalis na di ko jaarale ci Massamba Sarr muy suñu consul général di di di Casablanca ak ambassadeur waaw ak ambassadeur ak père mi nga xam ne moo leen fa représenté père chaque jour day ñëw ci hôtel yi di ñu xool naan booy maa nekk ngeen maa booy manqué wu leen dara chaque jour day ñëw di ñu bindal enveloppe di ñu jox xaalis kon nag ñun amuñu lenn loo xam ne ni lu ñu deseel gouvernement Sénégal ñu ngi koy sant di ko gërëm jël nañu en charge jël ñu indi ñu ba fii ba ñu ñëw nii Rosso wax dëgg yàlla amuñu benn jafe-jafe ñu koy sant di ko gërëm ñu ngi nii tamit jël nañu ay oto pour yóbbu ñu seen suñu njaboot bu ñu paree tamit ñu ngi remercier tamit Mohamed Ciss président roi du Maroc ndaxte Mohamed Ciss tamit jàppale nañu waaye bu ñu jàppalee tamit